amul donc buñ del si waxtee ku joon ku ne sa entraîneur da lay da lay jox ay directive yom na nga ko war a respecté càddu gi ba la koy gën Fils de Zal dóor na jël na ko jël na ko Fils de Zal da koy da koy tag mu ngi koy tag mu ngi koy seere daan na ko eh, ay daaw defal ñoom ñaar mën a bëre ñoom ñaar càddu ngeewul fi ñu lay yegg sori na fi ñu lay yegg sori na dañuy dem ñoom ñaar oh. jël amagul Fatim jël amagul ñaari xale yaa bëre

dañuy dem ñoom ñaar oh! jël amagul Fatim jël amagul ñaari xale yaa ngi bëre eh, eh. lu am Fatim